ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax ba tey ñu ngi ci biir cérémonie bi ñu ñëw fekk si kenn koo xam ni muy maître Sey di avocat à la di avocat Cheikhul Khadim di taalibeb Serigne Touba ñu dëkk ak moom Grand Yoff xam paseefam xam liggéeyam fii nga xam ne mooy Ndakaaru ci yëngu-yëngu yi nga xam ne lépp luñ ci woote ci lislaam rek mi ngi ci biir rawat na nag kër Cheikhul Khadim ñu ñëw fekk mu toog nii toogoog nag suñu sëriñ suñu xarit suñu wëllare di kenn ci kër Serigne Touba waxoon ne man satu Serigne Touba rek rek laa croiser les bras muy Serigne Cheikh Abdoulaye Gaynde ma di ministre conseil di nit ku baax kon bu ko defee ñu bàyyi kàddu gi ak ki nga xam ni mooy euh, maître Sey avocat à la cour di taalibe Serigne tubaa mu tombé nag cérémonie bi bis bi ñu jagle ko Alhaaji Baara moom Cheikh Mouhamadul Fadel Mag maître Sey ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Assane. ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di am mbégte di la fekk fii ci ouverture Massalikul Jinaan bi te bis bi ñu tudde ko Alxaaji Baara ñu bëggoon xam nag sa taxawaay ci bis bi ak sa taxawaay ci li nga xam ne moo ouverture yi te nga dëkk ndakaaru dëkk ak ñun ndakaar te ñu xam sa liggéey xam sa pasteef xam sa yëngu-yëngu ci diine waaw dama ànd ak euh, délégation moo xam ne sëñ Abdou Lahat Mbacke mi moo di dom ci kër gi waa kër sëñ Baara di ko waa kër sëñ Fallou ñu jagle leen bés bi ak ministre d'État Ismaïla Madior Fall ak le maire de Guédiawaye Ousmane gay Pape Bayel Diop ñu ñëpp président wax ñu ñu ñëw ànd ak sëñ busbi pour bés bi nga xam dañ ko jëg mais bi mu ngi ci besu ubi juma masalakul jinaan ñun ñuy sant yàlla bi ñu yàlla bakkan ba ñu fekkee bés nga wane kan mooy Serigne Touba tey victoire bu rëy la ci tubaab yi nga xam ne ñoo ko yóbbu woon Gabon jëlee ko Ndakaaru gii delle su ko waat Ndakaaru gii mu waxoon ne Ndakaaru gii dina fi am mandalga muy tey juma masalakul jinaan bii nga xam ne lu mu wax dëgg la ñun dañuy sant yàlla bi ñu julit di gën a sant yàlla bi ñu nekkee murit di gën a sant bi Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba nañ ci bi kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké kenn du moom du kenn loolu mooy dëgg donc ñun mbëgte lañ am teewal fi président de la république ànd ak doom ci kër Serigne Bara di ñaan fekke ak muy ubbi jumaa ji nga xam ne mooy Massalikul Jinaan di buntu àjjana comme ni ko niñ ko niñ ko tuddee di sërëñ sëriñ Muntaxa Basiru di ñaan yàlla may ko fan gudd ak wër yaram di ñaan jàmm wàcc ci réew mi parce que Sénégal ñi fi tëdd ñu baax ñii ak commencé par Serigne am Amadou bàmba mun nañ am yaakaar ne jàmm dina fi sax ba faw di gën a sant yàlla di sant Cheikh Amadou Bamba Mbacke di sant sama Serigne Serigne Saliou Mbacke. Euh, Maître Seye xam naa ne yow buñ la laajee ci ndakaaru tuuti am na loo ci xam ndax ñun ak yow ñoo dëkk ndakaaru te sa yëngu-yëngu yëpp. gannaaw yi nga xam ni moom yaa ngi koy yëngu waxuñu sax avocat à la bi nga doon waaye da ngay euh, kenn koo xamante ni si nit kuy def ci social nga rawatina ci diine te ñu xam ci dara bis bi ndakaaru tey nga xam ne am na gan semaine bi yëpp boo xoolee ndakaaru xam ne am na xew-xew ndakaaru am na bis waaye yow mi dëkk biir ndakaaru ban yëg-yëg nga am ci li nga xamante ni si mooy waaji xew ndakaaru li ma yëg mosuma koy yëg bi ma juddee ba léegi keroog bi nga xam ne xadim général sëriñ Mountakha basiru Mbacké mu ngi fi ñëw ñëpp a gis nañ ni Ndakaaru mobilisé muliti nañ mobilisé julliti nañ mobilisé pour dañoo dem ba cuuraay sax mbedd mi maa ngi wax ak sëñ bi léegi ne ko àjjuma fii kenn du fi xaj dégg naa ne mobilisé nañ 1600 forces de l'ordre mais duñ fa xat loolu dafay wane ki nga xam ne moo waral bés bi ni mu toll euh, sëriñ Touba euh, euh, tolluwaayam ëpp na li lii moo koy firnde te bu ñu toogee ba yàlla may ñu ajjuma di nga gis li ma la wax mobilisation bi fa nit ñi kenn oowu leen kenn joxu leen kaar kenn fayu leen ñoo ñëwal seen bopp ndax yaakaar gi ñu am ci sëriñ Bamba ndax ni ñu xamee sëriñ bàmba ah kon nga xam ne eh, ndakaaru am na gan xam nga xalif général boo xam ne doom la walla sët ci sëriñ Touba bëriwul lu muy ñëw ndakaar ñoom Touba rek doy na leen man ba may fàttaliku sëriñ Abdou Lahad Mbacke laa fàttaliku moo mooy xalif général bu murit bu fi gëj te juba njuga kabe moo ko moo ko dalaloon fii tey xalif général ñëw fi war fi def lu mat semaine lii moo ko waral jumaa ji moo ko waral Massalikul Jinaan li muy teg ci tarixa murit ci lislaam dafa am doole dafa bëri te buñ ko ubbee di ngeen ci xam dara moo tax mobilisation bi nga xam ne mooy am kenn du xam ni mu toll ñuy ñaan rek nit ñu dal ñu dal saay-saay yi toog xam ne bés bi bési nit ku baax la c'est un saint ku fi nar a ñëw pour indi fi seytaan pour indi fi loo xam ne jugut bu yeboo nga toog parce que bés bi bëriñ su bési Serigne Touba la ca la bés bi bési Serigne Touba la Ndakaaru moo xew ne alors Dakar nous indi leen lepp lo xamni moy mooy ci li nga xamni moy ci ouverture bi la semaine de la semaine de Dakar la semaine de Massalikul Jinan l'ouverture de la grande mosquée de Dakar muy Massalikul Jinan